waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ xaadim Mbàkke la sëriñ Ateex mu sëriñ Seex Awa Balla góor si ngeen di gis nag Seex Koli la tudd moom fu ne lay dem waaw naan sëñ laat mu sëñ saam mu sëriñ maam Seex Anta mooy baayam jàpp nañ ko nag maag jëwrin Abbas ñi ngi nii ci taxi bi ak sëñ laat mi muy bëggoon a mooy baayam sëñ laata ngi nii toog ci oto bi ñi ngi nii jëm ak moom gendarmerie bu yaraax waaw ñu bëgg nag képp koo xamante gis nga ko nga xam ab client la ab fenkat la Koli la sant dëkk fi Yaraax fu na lay dem nag waaw fu lay dem mi ngi nii ab tappalekat la a ngi nii risaatool def na fa toj toj bari sëñ laat mi muy wax ne mooy bàyyam mi ngi nii ab tappalekat la sëñ laat ab tappalekat la boo xam ne maanaam xam naa ko baax a baax a baax bu mu naxati kenn bu mu naxati kenn ab naafeq la ku bon la seex la tudd sant Koli yaayam tudd Gédé Diop maam ku xamul li ma wax bu la neexee bu duggee ci ci YouTube bi boo tappee Gédé Diop da nga gis yaayam muy def affaire bi noonu moo ko gën a jubali gis nga ko waaw mi ngi nii waajaa ngi noonu képp ku ko gis rek na nga ko xàmmee waaw mi ngi nii waaw mi ngi nii digg bu ba di niroog mbaam xaw nii cim du nit ku baax de xool leen ko bu baax a baax a baax mi ngi nii saay saay la arnaqueur la xool leen ko bu baax